hawazani llahu min asheytaani waxaada lii manafihal awtaan mu wecci asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu da koy wecci lu tax ki ko wax dëgg la daan naa wax aoudu billah bismillah inna wàlli yi yàlla daan naa ko wax naam waaye bu ne yàlla da ko musal ci saytaane ba jox ba noppi jox ko njariñi dëkk yépp moom la ko tedd ki wax moo tax mu mën a remplacer asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndax moo ne naqli min a lawhil mahfuuzi abada li muy bind waxi malaaka la du inspiration comme ñun ñii nga xam ne ay doomi aadama la ñu te moom mu ne aadama du maamam te ngeen may baal ginnaaw nuyoo bi ma tënk ndax nun ñépp nun sénégalais yépp mën nañu ni ñaar lañu lu tax ñaar lañu spirituellement kii kilifa ñépp ki ko fi nekk la ngi nii te bi daata ñëw fekk na ak njaboot a ngi fi ak njabootam a ngi fi waaye teewul sëñ bi du tànqam lu kenn xam na ni fii benn marit bu fi teew moom nga fi teewal xam na loolu waaye dafa bëgg lu rafet baax sax dina am waaye baaxin ci façon moom ku ko xam sëriñ Muntaxa aw baaxin dafa am baaxin nu ñuy baaxe nu ñuy baax ci yëngu ak ni ñuy baax ci dal ak nu ñuy baax ci yéene ak nu ñuy baax ci wax ak jëf action ni Sëriñ Muntaxa bien avant que muy nekk kilifa kilifa yi tey ba tax na nuyoo bépp dëgg la du ñu mën a ñàkk a tudd Seydina Abbas bu fekk xaadim doomam nekkul woon itam ñun ñii benn sant Mbàkke nekku fii itam ma faal day remplacer ñëpp lu tax daaru lu tax ndaayaan lu tax Serigne Moustapha Hafsa kurus la benn per boo téye rek téye kurus gi yépp te lii góor ñi mooy jigéen ñi Adama ak Hawa rekk a am ñooy sunuy maam bu ko defee kon nuyoo bi spirituellement day tënku ci ki nga xam ne mooy kilifa ñëpp di Serigne Mountakha bu ko defee temporellement itam le médiateur de la république a ngi nii waxoon naa ko ci téléphone bis ni ko ñetti murit am dafa am murit am murit saadix am murit saadix wa nabir kooku nag la ko tedd kii wan yoon wi uri li wàcce maari kii sabila kulla muridin saadiqin nabila nekk murid rek doyul nekk murid saadiq rek doyul waaye muridan saadiqan wa nabilan koo ko war a jiite Alioune Badara mi laa ko mos a wax ci téléphone donte wax naa ko ñu bari itam kon moom it nuyoo bi temporairement bi jëm ci le président de la république Macky sàll ci moom lay jaar d'une part d'autre part mu jaar ci sama jarbat di Cheikh Abdou waaye bu ngeen xoolee ñoom ñett ñooñu président Abdoulaye Wade président abu Diouf président Macky Sall dëgg la xaj na loolu raar la ñetti président yu préfacé benn livre lu raar la naam waaye fii bu ñu jàpp ni war na fee raar bu fi bu fi raaree itam doonul lu war a raar lu yell la ndax fi ku tedd ki jaar ak ñoom ñoom ñett ñooñu ku tedd ki dafa am fu mu jaar ñoom Abdou Diouf a ngi may dégg Abdoulaye Wade waxi nopp kii waxi nopp seen doom ji waaye grâce à Lamine Lamine Sall Lamine moom su ma nekkee di wax ci moom day nuru li wolof naan ragalante gannaaw du yooyu bu nit doon parfait dama naan Lamine il est kon loolu laa waaye tur wi day yóbbaale lépp al amin mooy le sûr mooy ku ñu wóolu tur wi day yóbbaale lépp Ablaye Wade préface am gis ngeen feeñ na ci préface am ko xasaf préface dafa bari loolu nag at yi la xol ba la at yi ak xol ba ak fés ga Abdou Diouf c'est un homme d'État du politicien du homme politique Ablaye Wade mooy homme politique Macky homme politique la politicien la non il me connaît xam na samay waxin donc waaye Lamine gisoo bi Lamine nee naa fi lëngeen foofu ŋar rek bu ñu doonoon ay gaynde ñëpp a war a ŋar bi ah. parce que gis nga <laughs> Lamine dafa dégg mais ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma jàngul wàcc xal kitaabati ya min yow mi fawqa salaatil xubbilat wa sawmi lamin jàng lamin jàngul loolu kon bu ne jàpp leen yéen ñi teew fii naafila ngeen fam loo xam ni ngeen baal ma bala maa jàll ndax Sëriñ Tuubaa ñi ñuy tudde ay awlaad ci moom ak ay banaat ñuy tudde ay doom ci moom di ko ko askanale ci ay góor ak ci ay jigéen ñoom ñëpp daan bind ci moom waaye dama bëgg jël benn képp boo xam ne sama nijaay Mbay Ngom di jàll mii laa ko doon wut wutloo ndax digganteem ak soxna may bàjjan mi Cheikh Abdou doon wax léegi mu jëlal ma ca benn jëlal na ma yeneen tax ci sëñ Mbay Jaxate sëñ Moussa Kaaki sëñ Cheikh Samba Diarra Mbay ñëpp waaye boo jëlee benn bayit bu doomi Serigne Touba wax dugalaalee nga ñëwñe ñépp ci biir bàjjan ca woy wa daf ne Serigne kenn du moom te moom du kenn kenn mu sa gis ku mel ni moom ci fenn loolu maam mi Cheikh Abdou wax lool képp laa ci jël waaye boo ko jëlee li ci yéeme boo ko xoolee fukki baat la ak ñaar yóbbu la ci laa ilaha illa kenn du yàlla ku dul yàlla fa la lay yóbbu jërëjeen jëf waaye xam naa ne ngeen kii rek bu ñu mënee muñ tuuti déplacement yi rek dama ne woon bu may tàmbali xam nga ku tedd ci boo ko bàyyee sa lépp bu fekkente ne danga naan ko noo ngeeti nii ak sunu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp jorul ngay waajal dara naan nii laay tàmbaleek nii laay waxeek ndax man li ma décidé woon fi man décidé woon ni fi laay tàmbalee tàmbalewu ma fa xam ngeen lu koy waral gis nga boo ko bàyyee sa bopp moom mooy waaw dama ni woon damay tàmbalee ci benn bayit boo xamante ni bi ci bisu altine ji la ko wax bishra yawmil isnayni mu jël baaba lettre ba njëkk dal ne baqaa uman baqaa uhu abqaani hazaba man fii jay sa chin alxaani ki ma fi desal légir ki ma boole woon ak ñooñu nga xam ne mooy l'éternel moo ma jox l'éternité moo ma fi desal te moo leen di tegu mbugalam moo ma leen di dumal gis naa mu bind ci bis gaaw ni ko ni ko axrij idaaka sarmadan min rahmatik wa lin taqa minhum bi abaqa naqamatik moo tax waaw dañu naan du fayu waaye nee na yàlla sa yërmande ñoom ñoo ñëwoon na leen sori fayul ma rëddëtta mawti lillazina axraju falyan sarif min nii ilayhim haraju ba ñu ko mettre au nga xam ne bu ñu nee feu dëgg la bis bu nekk lam ci bind bari madda ilayya nafa fil kawnayni bi jaahi man walida fil isnayni te tey de altine tey ak ëllëg l'émergence moom la ko yàlla jox moo tax ñoom mag yi ñii ak i équipe ba mag seeni équipe nañu ñëw ci projet de société Serigne Touba pétrole gazo leneenoo loolu képp mooy tax ñu mën koo jariñu